maaleykum salaam salaam. na ngeen def. jàmm rek la ana waa kër ga. waaw tamit dara jàmm rek la. Fekkal bu baax nag. waaw dafa am poli. Fekkaatal dama raba dama ñëw. jëlal nag jëlal baag bi nag. waaw jëlal baag bi. feccal mu ñëw voilà feccal la voilà. soo teye teye raba teye sotti ko fii. voilà. Euh, thème yi nag li ko sabab xam nañ ko mooy dafa am suñu yaay ju génn àdduna ay doom yoo xam ne ñoo bënnal teen seen waajur euh, su ko defee lépp loo xam ne nit ñi jëriñoo ñu ko ci ci teen bi yàlla subhaanahu def ko mu nekk yërmande ñeel seen waajuroo oo yàlla na ko yàlla def loolu nag lu rëy la lu màgg la parce que waajur moom mooy bunt ci jun ci aljana maanaam doomu aadama bu nee rek sa waajur mooy sa bunt aljana fekkee mi ngi dund su fekkee mi ngi génn àdduna mooy bunt la boo xam ne tëjuwul mooy li ngay def ci moom moo xam ñaan la moo xam ay jëf yu baax la dafay dem ci moom. daanaka sànq jooy naa ko sax tax bëgg ma ñun de amuñu ndox teen yi ngay gis kenn mënu koo naan mënul sax foot mënul sangu xanaa fas yi ak mbaam yeeg nag yi ñoom ñoo koy naan. mais pour lu ñu naan xanaa nga dem ci robine ba li ñu doot ci robinet bi daanaka bareetut te dañu doon rang nga xëy ba bi doo mën a jot rang bi ci robine bi waaye fi ne nii boo ñëwee danga ngay doon teg ñibbi ki tax ñu def ko nag li ni ñu mel ci suñu xol bi yal na ko yàlla defee seddal xolam ci suuf yal na ko yàlla seddal yaxam teen bi njëriñ bu mag moo ci nekk ndax ñun am amuñu fu ñu fóote lu dul ci robinet yi ndax gis nañu teen bi ñam nañ ko boo xam foot nañ ci sangu nañ ci lañ doon ñaan yalla yalla defal nañu ko ñaan bi nangu na bu hmm? yag ndox ndox bi neex na robinet bi dañuy fay de dañuy fay amuñu kër yi yëpp amuñu robinet gis nga bo bo bo bo bo boo jéggee tali bi nii foofu yëpp amul ndox amuñu la amuñu courant ñun ñu ci jafé jafé bu ngand de ñu ci jafé jafé bo xamné yalla rek moko mëna tégg yalla nañu ko yalla téggil amin ya teggil mhm. yalla nañu ko yalla téggil yalla ñu jotaat ku mel ni bu ñu jotaatee ku mel ni yéen xëy na lu ñu jàmbat ci dëkk bi yàlla dina ko dindi yàlla nañu yeen yàlla fay ci lu ngeen def moom xamu leen ko sax eh, di ñaanal ki waral lii di leen wax ne eh, macha allah am na sens comme yar na leen ci li ngeen xam ni ngeen war a def pour ñaanal ko kon foofu la njëkkee amee sens parce que man guddi sax dama koy root fii guddi sax root naa ko fii te Dakar la nek mais damay ñew tak sareet bi parce que damay yërem jigen suñ jur yi daw fe lañ mujj a fay forage ñuy naan fofu ñuy roté fu ne ndox dafa manké fi carrément waaw teen yi yëpp baaxatuñu dafa dañu yaqku presque ci ci biti lañ doon roté ñu bari amuñu robinet xam bo xolé ay ñaari robin rek ñoo fi nekk boo nga rang fofu bala do liggéey liggéey kër sax timis ba gee doo mun rot be ñibi xam nga lolu metti na loolu métti na kon nag comme lii am na ah ñu ngi leen di gërëm di leen sant kii waral lii yàlla na ko yàlla yóbbu ci ajana yi gën a kawe. Euh, initiative bi au départ euh, si ñoom ñaar nii la loolu daal donc si seen si seen yéene ak si seen xol yu baax comme ni nga ko waxee rek yàlla xol lay fay te euh, yal na yàlla moo tëgg seen seen yéene te ki fi jógee yal na ko yàlla yërëm. 你。